يشاد أكرم بدار للقرآن تشاد مجد أصيل صانه التوحيد أكرم بدار للقرآن تشاد صدق ولا ونقرأه ونفهمه أخي هيا نرتله على مهل نجوده به الأجر به الفوز إذا كنا نرتله به الخير به الجنة إذا كنا نجوده rasulullahi rabbana salaatullahi nadu lahu lifi bayu rasulu bagen misal rasul wajan muni jawati mamalakal mawti lifi bayu rasul dubay muy sangat suul waajal mu ngi malakal mawti liggéeyam lay dee ñun ñëpp lay jësi bu xëy si wul gontu si si waa ji baax soxna si du sonn du taayi si buy jël si gaay yi ñëpp lay takkaale même imam yi jàkka yi ñëpp lay takkaale même imam yi jàkka yi li fi jële mas mengu moo fi jële yaa buri waajal mu ngi ñëwati وملك الموت لفجر الشريف وفجر يا أبسا وعد المجنوبة وملك الموت ñun ñëpp lay jël si ak lu mënu fekk si di dem duñ ma yóbbu bàyyi gaay yóbbu na sa dëkkandoo yóbbaale sa kii ngay mu ngi ñëwati moom malakal mawti li fi mun alaykum salaamun salaam yóoban ilayna bataabal liqaa ayca salaamun alaykum salaamun salaam yóoban ilayna bataabal liqaa ñu sargal suñuy gan ci bis bi ñu def teral leen ci xéewal ñu leen ameel mu ñu ñaan buur bi yàlla mu may ñuy nga del ñu ñaan mu may ñuy nga del ay conet way mu jug nonga daara yaa ngi jóg xolil leen yëngu te leen way yaa ngi jëm xool yi leen yëngu leen alxuraan gi ay te way bu jub nanga daara yaa ngi jëm xool yi yëngu leen alxuraan gi ay ay te way bu ndongo daara yaa ngi ñëw ñu leer yëngu leer alxuraan a ngi ca leen way mu jub ndongo daara yaa ngi ñëw way mu leer yëngu leer alxuraan a ngi ay ca bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad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 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yu tedd yu jóge ci ay barab yu wuute ñëw fekk ci seen complexe bii di complexe islamique Khalifa Ababacar Gaye ci làmmiñu mbooleem ñi nga xam ni ñoo nekk ci daara ji li jaar ci ñi nga xamante ni ñoo yore administration bi jaar ci ñi nga xamante ni ñooy ustaas yi nga xamante ni ñoo yore xale yi di leen jàngal jaar ci personnel bi nga xamante ni ñoo fi nekk ni ki ñu yor sécurité bi surveillant yi ak ñi nga xamante ni fa tabaarakallaahu ñooy jigéen ñi nga xam ni ñoo yore waañ week ñu yor wàllu cet geek toppatoo xale yi ba ci ñu yor wàllu médecine ak ñépp ak ci turu xale yi nga xamante ni ñoom ngeen jël indi leen ci daara jii ngir yaakaar ci turu directeur Ibrahima Gaye ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak ci sa sant ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu xaq te di leen ka baal di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala yàlla dañu boole baal dafa mel ni dañu war a tàmbali nag liggéey bi liggéey bi yàlla dogal na xale yi def nañu fi lu mat fukki weer ngeen wóoluñu ci ñoom ak ni jamonoy naqari yépp ñu ñëw ba ci àll bu sori bii taxawal fi lii ngeen jël seeni njaboot teg ci suñu loxo am na yu baax lool ci li ñu ci def am na yoo xamee ni dafa tane am na yoo xamante ni baaxul waaye ñun ñu yore daara ji yépp suñu yéene ci xale yi moo doonoon xale yi ëpp ñu lépp lu baax gënuñu ci wàll gépp ndax confiance dafa fort suñu boroom subhaanahu wa taala moo dogal bépp liggéey bu mu mënti doon day am lu baax lool am lu tane am loo xamante ni day yem mamaay waaye ñu ngi jéggalu lu yem mamaay li li ci baax ak li ci baax lool ñu sant ci yàlla waaye sant leen ci ndax fii bu ñu ko tijji woon te joxu leen ñu seen njaboot leneen lay tudd waaye du tudd daara kon yéen ñi jël seeni njaboot jox ñu benn ñu jéggalu leen ñàkkul xale bu fi xiif ñàkkul xale bu fi mar ñàkkul xale bu feebar ñu xaw ko sàggane ñàkkul xale bu sonn ñàkkul xale bu gëmmentu te amul droit dem tëddi yooyu yépp ñu jéggalu ko waaye lépp rek ngir bëgg baax ndax araab day wax ni bi qadril kaddi taktasibul maali kenn ku ne li ngay daj ci coona booy am teraanga teraanga bu tol noonu ngay am xale yi defe naa ni maa ngi yéen fonde deena defe naa ni wala deewagul soom bi deewagul cere nag mburoog dute mburoog dute deena tey kon lu ma leen deseel benn añ incha allah buñ ko añee mu jeex ñu suuli añ ngeen may ma jàmm dem añi ceebu man ma añ sama ceebu déggal saay-saay boobu naa maam nga añ sa ceebu jabar a ñoom noonu lañ ko doon jàppee semaine bi dañu am mëni waaye bis bu ne rek lu ñu togg dañ naan ah daxin jiyee deena tey ndeysaan daxin deena mooy moom pare nañ ci moom fonde dee na tey cere dee na tey macha allah waaye manit duma leen ko baal bu ñu waxee rek man leen manit ma añi sama ceebu jabar baa sama ceebu yaay rek ñoom ñu dem añi seen ceebu yaay kon dañuy sant yàlla bu baax dañuy bëgg dama ko yàgg di wax daara dañu bëgg mu toll foo xam ne ci àdduna xale yi ci seen bopp ñooy bëggal seen bopp dem daara parce que dafa amoon ay jamono daara genre kaso la danga naan sa doom ah doo jàng waaye buñ la dàqee ma yóbbu la daara mu mel ni daara kaso la xale boo ne dangay dem daara muy yuuxu di jooy di daw lu ne ñun dañu bëgg daara joo xam ni mënu la ñàkk nag coona ndax fu fu fu fukki nit daje rek mu mu metti laajal ñiy dem màkka man VIP laa daan yor bu ma demaan màkka waaye dañuy fay douze millions pour dem moment boobu ñeneen ñaa ngi doon fay trois million cinq cent man ñi ma yor douze million lañuy fay war a def quinze jours waaye dañuy sonn man ma sonn ba nga yërëm leen te hôtel cinq étoiles la ñuy dal kon rawati ku nekk ci daara dañuy sant parents yépp jéggalu leen fa tabaarakallaahu sant xale yi ñoom it ndax ay jàmbaar lañu ndaxte macha allah ñàkkul xale bu fi yàq léeg ñu duma ko ñàkkul xale bu def lu mu warul def léeg-léeg ñu duma ko léeg-léeg ñu yedd ko waaye ñoom ñëpp àndandoo nañu nag muñ ko sant tamit ustaas yi ndax ñoomit bu doon man ak man rek xale yi defe naa ni mën naa wax ni at mi du ñu ci jéexal benn rubu léeg sax xale mokkal ma wan ko téyeel damay def bu may dem fenn ànd ak moom pour mu mën a tari ndax ñàkk jot waaye kon oustaz yëpp ñu àndandoo sant leen ci leen jiite di Hamdou Rabby Ndiaye Ali Diop ak mbooleem oustaz yi nga xam ni ñoo yoroon xale yi ñu ngi niit continuer di encadre fa tabaarakallaahu xale yi so dama dem job sa yaay ñëw na. waaw oh. sa oh, oh. papa num tuddu Modou wad ñew na. waaw wa Mor yow ni ma ubbe neex na may ko papa papaam ñëw yaayam ñew yaay yi ñom ño dàq ñew papa yi moo tax gis nga palaasu yaay yi fess na palaasu papa yi ba legi yaay yee ko wara remplir ay wa Mor taala jangal ma alquran bismillah. أعوذ billahi من الشيطان rajim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 وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ۖ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قتل الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم خشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر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 قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ۖ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Sadaqallahul azim. Takbir. Takbir. Oh, Masya Allah. Al-Quran ji set na Buta na neex na bu taxawoon ca kaabatul musharraf jàng fa aaya yii dama ni fa alquran wàcc kenn du ne ko jippoo ndax li mu jàng ni mu setee ni mu leer doom yàlla yàlla barkeel la papaam ak yaayam dañu jël teraanga bu bari jox ko tafsir ni dañoo bëgg a teral oustaz yi nga xamante ni ñoo ko doon ñoom la ñuy rek bismillah ñu ñëw jege ñu préparé ma xale bu ñuy wax Mouhamad Ndiaye Chine papaam ak yaayam Mouhamad Ndiaye Chine moom أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آية لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قالوا ليوسف وأقوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العظيم الله أكبر ما شاء الله القرآن دي سحنا نحن sunu borom dani waratilil qur'ana tartila xolal ni xale bi jangi alquran yalla Yalla fay tabarkel way juróom ñi yor daara ji dañu mani kérok biñu ko wowe tafsir niko Muhammad waccina al alquran dane addunaam ñaari contenté la ci mësa a yo xamni bir nako ni mënu ci té bopam bi ci ndëk mooy bi mu juddoo mu tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mooy keroog bi ñu ko woowee ni ko Muhammad wàcc na alquran wallahi doo ko réccu alhaaj wallahi doo ko réccu te doo ko layoog sa borom Muhammad yaa ngi jàng ci école waaw ban classe ngay bi deuxième bi bi de moyenne bi laa macha allah Mouhamad yàlla yàlla barkeel la. ici c'est Tassette. ici c'est Tassette. ici c'est Sikaaj allahu akbar yàlla yàlla fa yàlla barkeel yàlla nañu dem ba dirigeant réew mi génn fii su boobaa ngeen xam Sénégal bi ñu bëgg ak Sénégal bi ñu jëm yàlla yàlla fay taf si Abdourahmane ta barkeel la woy juróom taf si nee na lépp lu ñu def fii ne moom moo ko jël def ko ci daara ji tafsir ne bi ñu amee terrain bii jënd ko di ko liggéey lu ñu dajale moom la ñu koy yónnee ca Chine te booba ñu ko Abdallahi Fall moo leen boole ak moom muy def ay conteneur karo sonorisation moquette lépp luy logistique lu daara ji soxla wàllu électricité moo ko doon jënd ca Chine def ay dépense su boppam def ay fereem yónnee ko fii te li mu fi yónnee lépp karité la nag ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla fay ko macha allah laaj xalifa yàlla yàlla fay la yow ku la ku la xamuli dégg na sa tur ndax tafsir yàlla dafa dogal moom fu mu toll nekkul ci dara lu ko miin di toog ak moom di nga xam ñan lay waxal yow ku ne dégg na sa tur ci moom ci lan liggéeyu daara ji yàlla yàlla fay la Cheikh Al Khalifa soxna umul xayri si bu soxna asiyatu si mu sëriñ Mansour si bu sëriñ Moustapha si murshidin wal murshidaat fa tabaarakallaahu ñëw na mi ngi nii toog ànd ak Adja Ndeye Mariam muy di doomam moom la doomam mokkal alquran mu ñëw ngir yàlla ak alquran waaye ñëw ngir yàlla ak soppeem boobu Mouhamad Badiane macha allah su ko defee organisation ñaar bëgg naa mu doy ci tànt bi ndox ak mouchoir xam nga lu tax sërxët yi dafa nar a bari waaw ndox ak mouchoir na lépp manqué waaye bu mu manqué ndox ak mouchoir su ko defee rek ku jooy ba noppi rek ndax ki nga daal waaw noonu la war a war a demee su ne man fii ma toll man damay forcer te mënatuma kon yéen fu ngeen ne damay forcer te mënatuma kon yéen fu ngeen ne kon su ko defee ñi nga xam ne tamit ñi ngi ci tànt bi yàlla dogal ñu yor seeni teraanga di ko joxe ngir yàlla nañu fekk xale ba ca taabal ja tasi Abdourahman moo ko fa teg ñu jox ko ko fa tabaarakallaahu ngir rek bañ désordre désordre rek lañuy ñuy bañ képp ku yor enveloppe di ko joxe na ko joxe foofu ci taabal ji aywa nañ ma jox kenn ku jigéen soxna Seynabou Tall soxna Seynabou Tall أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى ذلك بأن Dar Quranik Elhaji Masam Bembeng. Dia ya udah kanan nafika mau lagi janggal wani. Anak forket lagi janggal itu di wani. Sabar piono. Nono. Nah. Sayai? Wah. Ayo janggal ma al Qur'an ya su. Amin. Inna Allahu bi lillahi min al shaitanir rajim. Inna Allahu sstefa adama wanu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 فلما ذكرك نصب وإني سميتها مريم وإني قبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلعني الكبر وقد بلعني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم ca yàlla boole ñu ma gàmmul ko at mu jëkk ma mu yebal xaaji Jibril Diagne mu ñëw indil ma suukaru koor ceeb bu bari ak suukar su bari ak enveloppe bi ji bi ñëwee ak ñoom Aziz Ndoye di dem miinu ma leen may def rek li xew Sénégal génne xaalis ci li ñu ma jox di leen jox ñoom ñi indi teraanga ji jibi ci boppam génne moom beneen enveloppe jox ma mhm. ni ma ñun dañu lay dolli waaye duñ la wàññi mhm. yàlla dogal gàmmu ga jot at ma ñëwaat gàmmu gi jotaat ma gàmmul maas ba fajar mu jox ma enveloppe di ma gunge ni ma bi ñoom jibi ñëwee xool nañu sa kër dama bëgg raser ko xalaatal la ko ko man daara laa bëgg mu ne ma kon nañ la fa defal daara ma ne ko foofu am na daara waaye dafa xat booba sax aw ma kër sama kër papa ma ne ko am naa fa daara waaye dafa xat mu ne ma kon boo demee Thiès li ko dóore suba na nga wër terrain boo gis nga wax ma ko dinaa ko jënd tabax ko ba milliard daal mën naa ko ci man yàlla dogal ñu gis teere ca koñ ba ma yoroon daara ci taatu garabu niim 93 lañ tijji daara ma woo jibi jaañ mi wax ko ko maas yëkkati million yu bari jox jibi ni ko bu ma ci feeñ boo demee daal moom na jël carte d'identité mu dem jënd dama koo jox ngir alquran ñu jënd benn terrain 500 mètres carrés maas di ko tabax ni ma dama lay defal fondation bu antan cinq étages defal la benn R plus ndax jamono boo ci bëggee teg dara man ko cee teg mhm. di tabax de pour gàttal def na ci lépp soixante et quelques millions benn nit a fa ma sa jaar jox ma ci dix mille francs ma woo ko ni ko dafa am ko fi joxe dix mille pour liggéey bi mu ne ma liggéey boobu moom nañ ma ko bàyyee rek ngir yàlla ak alquran ma ne ko nu may def dix mille yi mu ni ma jëndale yi galaas jibi di ko taxaw ba liggéey ba àgg kere bi ñu koy inauguré ci taaxi kaw nii la woon sëriñ Maodo see ngi toog alxaaji Mouhamadul Muniiru Njëgën a ngi toog kere la sëriñ Maodo fi mu toog rango ñi di tuuru mu laaj këyit ak bikk kere la bind way wii majdun asilun saanahu tawxiidu lu stop akrim bi daarin lil quraani tushaadu lu ci topp saddiq sëñ Maodo dani tedda nga gu yàgg gu cosaanu bo xamni liko rafetal liko ar moy wetal yàlla muni tedda nga tedda nga ay kaw téef ak tedd keur gu mel nii ñu tabax ko ngir alquran mawdo dad ni saddiq wala tartab fa inni alim li ma len di wax nak gëm len ko dëgg gu wér la dëggalal bul hésiter ndax man mawdo ki may bind ci mom kuma xam la bobu ma sangi tok muni xam-xam والعلم الصدين والتوحيد من كرجي متبخ غير خم خم تخم خم موي تشسان الدين موي تشسان الويتال يالا لوتي توب يبني المدارس والمساجد بيننا اكرم بقرن شأنه تسديد من الناس مما خم تديتي واخ يبني المدارس والمساجد بيننا جكي وكو تاي داي تبخ اي ايكول داي تبخ اي جاكا تي سونو بير نون سنغالي daal ni kaawteef aka maa yéem sang bo xamni mbiram yeb moy nu ñuy def ba nit ñi jup lu ci top fa shajaatun fi himmatin wa tawaaduin akhlaquhu ma in laha ta'dab sëñ mawdoni fa shajaatun jambaram fi himmatin ci yittey mas foko nat rom nako waye nak dako bolek tawadu'in toroxlu boo ko fekkee mu toog ci biir gaa yi di kaf doo xam ni kii mooy milliardaire bi tabax lii mu ni axlaaquhu ay jikkoom man Maodo wóor na ma ni maa in laha taadaadu bu ma fi bëggee ne naan maas daa tabe maas daa baax maas daa lii nee na mënuma koo lim ay jikkoom maa in laha taadaadu kenn mënu koo lim dogal foofu la yemoon ma góorgóorlu ci ba dolli ci inni uhibbu ma sàmba man bëgg naa maas loolu moom maa ko wax c'est normal ma bëgg ko kuy jàngale ci taatu garab bu xiinee xale yi wàcc ku ñëw tabaxal la cinq cent def ci loolu mais boo ko bëggul ngir yàlla it xanaa bëgg nga ko ngir dara moo tax man bi ma nee bërët di ko way dama dugal ci way wi ah baxru bi mu sëñ Maodo waye moom laa dugg rek ni unni uhibbu Masamba inda salasatin islaamuhu ihsaanuhu tamjiidu man bëgg naa maas te ñett yi moo tax ma bëgg ko islaamuhu ni mu mel ci diine lislaam bu ñaareel bi mooy ixsaanuhu ni muy rafetale ji bi bari na ku mu fëgg guddi sa problème moo ko réglé te maas la waaye tam jiidu ni mu tedde personnalité am tax na ma bëgg ko lan moo ci topp lu ma ci tegoon wa bashaasatun fi wajhihi ma'luufatun wa samaahatun في كفه تزداد ما دولتني وسماحة في وجهه مألوفة لوت باخ تكنا مم دنكو تي مين فوكو فك مو توك مانو خام ماس مو سانتيم ام بروبليم ولا ماس مو سانتيم امول بروبليم كانام جي بن لا لا محمد البصير وخون تيرنتي بي صلى الله عليه وسلم نكانه هو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه في عشم ماس بن كانام لا يور ma daal di dolli ni fa jazaahu du noonu rabbi xayra maa yujzal labibul muhsinul mutakarrimul mahmudu ma ni nag maa ngi ñaan yàlla na ma ko yàlla fayal ngën ji pay ji mu daan fay gaa yu baax yi yàlla na ko yàlla fay ba mu sant yàlla waaye yaakaar naa ni yàlla fay na ko macha allah tey génn na àdduna gis nga bi mu ma mujjee woo daf ma woo ni ma na ma xale daara ji ñaanal maa ngi nii di jóge Espagne ndax Covid bee ma fi tëjoon di dem Canada sama kër xale yi ñaanal ko bi mu àggee Canada mu wooma ni ma alhamdulilah fi mu ne moom agsi naa Canada maa ngi sama kër ni ma sama këru Canada bii moo gën a yaatoo sax sama këru ndakaaru fi mu ne kay macha allah daal ni ma léegi nag mokkal naa xat mu bi ngay jàng déglul ma taril la ko. ma koy déglu ci téléphone bi soxnaa ma ngi toog mu tari ba xat mu bi jeex mu ni ma mane naa ko comme yow ma ni ko déedéet doo ko mane ni ma ko mane. ma ne ko ndax su boobaa kenn du saraxe ma ne ko te yàlla dafa bind ñuy saraxe ak ñuy jàng man nii ma ko mëne man yàlla man la ko may yow saraxe yow la ko yàlla may yàlla xam na ni xaalis bi yow la jik mën xat mu mën la jik ma mën nga xat mu bi rek waaye nag ma ne woo ko ni ma ko mëne ñu tooñante ci téléphone bi mu ne ma beneen bi mooy am na ay kaamil yu ma liggéey bàyyi naa ko sama kër yabalal oto boo demee ci gardien bi mu jox la ko mu ne ma am naa sama turandoo bu ñuy wax Massamba Touré ak ku ñuy wax Ibrahima Cheikh Ibrahima Xumma mu ni ma ñoom it seeni jur dafa génn àdduna ma bëgg nga jëlal ma leen yóbbu leen ci daara ji ñu jàng alquran ni ma am na kaamil yoo ma daan defal koor di ma ko sargale ren duma fa fekk dama bëgg ngeen def ko ci daara ji dinaa la yónnee xaalis pour yow ak xaalis pour daa xale yi ma ne ko xale yi jarul nga leen di yónnee xaalis ndax maa koy jël mu ne ma eh, xaalisu xale yi pour xale yi la man ko xanaa bu ñëwee ñu añe ko mun ma waaw ngeen noose ko ma ne ko su boobaa maa ko jël ndax bis bi ñuy añe xaalisu xale yi dépense maa ko waroon joxe dama koy jël mu ne ma yaa xam ñu tooñante noonu mu jeex ñetti fan lañ ci teg bi ñu waxantee lii man ak moom fajar ñu yónnee ma message ni ma maas génn na àdduna kon moom alquran moo ñu boole waaye suñu mujjee waxante man ak moom yépp ak tari lépp alquran la waaye tey Sénégal bari na ay maas mbenk dem na li ñuy ñaanal nit la ko yàlla may bari waa na ku dem bàyyit as tuut yàlla dogal sa njaboot gëmewuñu ko ba di ko xëccoo moom njabootam ànd nañu doon benn balu lu seen papa doon def benn ci daara ji ñu ngi def fukkam gis nga bâtiment bu bees boobu ñu war a inauguré tey uh-huh. njabootam ñoo fi ñëw fekk ma mbaar ko ci jamonoy Covid uh-huh. pour xale yi externat yi bañ a jaxasoog internat bi ñu ñëw gis mbaar mi daat ni ma doo ñu dimbali rek mbaar mii ñu dindi ko defal la ko bâtiment ma ni leen ay aywa lépp ñoo ko def lépp sama dara demu ci li ma ci mujjee def démb lañ ma laaj ñaata nga ñaata lañ la yoreel ma ni nangam ñu yónnee ma ko ci saasa fukki dërëm demu ci kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla li leeram waaye bi maas demee nag am na yeneeni maas du ko neex waaye Cheikh Ahmed Tidiane sekk mii ci la bokk ñu ñaanal ko yàlla parents yi da ngeen koo war a xam Cheikh Ahmed Tidiane sekk mi président jaraaf bàyyiwul seen njaboot ji bu ñu paanee oto bu ma ñëwee wax ko mu yëkkati lañu paan jox ñu baa mu may ñu oto bu jamonoy xotti jotee mu ni ma bu ñuy tijji rek mu woo ma foo ne ma ni maa ngi Cees jaaral Dakar baa nga yónnee fa ma ñëw mu ni ma ñaata xale nga yor ma ni trois cent wala 200 wala 100 fi trois ne la mu daal ni am seen xotti ñaata la ma ne nangam mu ni ma am jëndal leen ay yére. bu jekkee ba mu yàgg du toog ñaari weer ñett yoo xam ni la muy yëkkati ci xaalis bu dul jeex jox ñu barki démb ba ci mujj bi ñuy tàmbali mbir mi nee naa leen samay fukki dërëm laa tàmbalee mais am na ñoo fekk ak seeni téeméer moo ci jiitu conférence lañ daje rek mu bokkal ma ko. tey jii bi mu ñëwee noonu la def dafa am yitte macha allah waaye dafa ne lu mu xat xat xat dina ñëw doog a dem ci yitteem kon Cheikh yow fu ñu la gërëmee nga mer waaye man wax naa la ko waxati la ko nee naa la bu yeboo nga mer waaye feek ngay def lu baax ma di ko wax du ma détaillé nag waaye dinaa la ñaanal yal na yàlla yokk sa sutura yal na yàlla yokk sa teraanga yal la yàlla sàmm yal la yàlla aar jumaay Tiwaawoon jële ñu jël ko dugal ko ci commission bi ku diine ñorul Tiwaawoon du ñu la dugal ci seen juma lu baree baree baree bari mu ngi koy defal lislaam du ñu ko defal di ko defal Chérif Mamine Aidara fépp bërki démb am nañoo moom laa yéen kër Serigne Cheikh Mbacke laay ca daaraam mu def fa teraanga noonu la koy defee ci àdduna bi yépp ñun ñii nag nga xam ni du ñun waa lislaam de déedéet ñun ñi nga xam ne suñu yëngu mooy conférence ak gàmmu waay waay yéen ñi nga xam ni yéen a tax ñu mën a conférence dañu jàppale daara yi di taxaw bu ñu leen gërëmul sant leen ñaanal leen suñu ngor day des yéen def ngeen mën ñun li ñu mën nag mooy wax adduna bi yëpp ni nañ leen ñaanal yàlla rek ñu ngi lay ñaanal nga gudd fan ñu ngi lay ñaanal nga wér ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàq sa sutura jàkkay kaat jumaay quartier am da ko raser ba mu doon teeree nii mu def ko juma fële am na ko ni ma léegi jumaa ja bokk na ci jumaa yi dàq waaye loolu yëpp macha allah yàlla mi tax nga koy def cheikh yàlla na la yàlla fay xaali lii daal moom laa ni woon way wi nga don dug mo taxone ma dug ci izra'ina ra fa qaala li ahlihim qufu inni inni anastu naran la'alli aatikum minha bi qabas لعلي آتيكم منها بخبس وجد على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاعلن عليك إنك بالوادي المقدس تُوَى وأنا اعترتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزي لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي وما تلك بيمينك يا موسى صدق الله العظيم الله أكبر تكبير تكبير oh mais tafsir tafsir forage na seen xanaa dañ cee sotti lem non wallahi booy seen alquran bi mën na maa rey njëgeen alquran moo dàq ginaar du ñu doñ wallahi alquran al azim yàlla yàlla may ñu ñu mën a sentir neexaayu alquran wallahi walquran al azim mbokk yi alquran moo neex koo teg nu mu tudd xaadim tin cheikhul xadim bismillah yalla yalla may ñu ñu mëna am yek yek ci neexayu alquran e wa yalla yalla may leen ko no tuddu khadim tin khadim tin sa pap ñew na waxal waaw sa yaay waaw sa yaay ñoon ya nga jang école yow ci daara ji rek nga ne external la jang wat ñib da nga wacc alquran waaw ay wa jang ban deuk nga dekk pour ndof pour ndof la dekk mom ay wa jangal ñu alquran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 فلعلك باخ نفسك على آثارهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة أتعلها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف في والرقيم والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي yoo ci nuyoo yi fi jaar boobu ba léegi rek di kontaan ci seen teewaay ak seen safoo ci alquran démb dama ñëw fi ni tafsir Abdourahman tànt bi di dafa tuuti mu lay wu teg ko sama loxo ma sonn ni ko ah, baax na noonu rek laa mujj defal lii de mu ni mu ne yaakaar naa ni lii parce que expliqué bul bëree bëree bëri mm-hmm. ma bàyyi noonu waaye la ma ko waxoon démb dikk na góor ga nag ne woon na ku xewle kenn wuy si wala bul mere kenn mereel sa bopp waaye ku xewle nit ñi ëpp bul kontaan ci kenn kontaanal sa bopp ndax nit ñi lebleetuñu waaye dañuy fay kon jazakumullahu xayran lii seen jur bëggoon rek si yéen nekk ma nuyu ñëpp nag kon képp ku ñu nuyu woon rek nuyu naa la pour gagner temps li ñu sàkku ci man nag mooy jëmm jii taxaw suñu kanam muy xale bii dañ ma wax ci moom loo xam ne wax dëgg yàlla man gëwuma ko waaw waaw dama leen a weddi wax dëgg yàlla parce que dañu ma wax ni ma xale bii dafa mokkal alquran te li ñu wax ni moom la xale bi di def yéen ñi jàng tubaab su ma leen ko doon bëgg a wax bu njëkk dañ daan wax naan xale bi dafa am licence mais léegi kii amul licence boo xoolee léegi nit ki am bag dañ ko daan dafay def licence 1 licence 2 licence 3 master 1 master 2 soog a am doctorat muy système LMD xale bi bi mu jàngee ba suuratu yaasin boobu la am licence 1 mu dem ba Mariam muy licence 2. mu dem ba alif lam mim sood muy sotul araf muy licence 3 mu wàcc alquran bi mu wàccee mooy master 1 mu miin alquran di tari juróomi xisib fukki xisib fukki xisib ak juróom ñu ne am na master de léegi nag ñu ni romb na master yooyu romb na licence yi tey nag ñu ne am na doctorat mais yéen est-ce que seen xel nangu na ñu naan leen xale bi am na doctorat xel nangu ko xel laa wax nag waxuma nag réalité li leen jàpp moom ma jàpp man mënuma jàpp ni kii loolu mën na ne léegi nag ndax li ma wax moo am walla ñoom li ñu wax man sax waxuma man damaa foog mais ñoom dañoo wax léegi nag loolu la ñuy vérifier salaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. bii وإذا حييتم بتحية فحيوا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا الله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لك في المنافقين فئتين والله أكسبهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد سبيلا. ميرسي ميرسي man mënul bëgg histoire. Foofu mënoon xamal ma la nuyu ni nga fay ma fay bu ma bëggoon nga yokk fay bi nekk te moom commencé na xeex bi mas mi bu maa ngi ci risque la sëñ bi noo tudd. Massamba foo dëkk. Sall. papa. Cheikh Tidiane Touré. kan mooy sa yaay. Aïda Mbaye. ñu ngi ci jotaay bi lu tax am sa papa ah d'accord waaye ku bokk ak baayam wala nga bokk ak yaayam ñëw nga ci jotaay bi al isharatu takk fii li man àq la wax du yegg ko ko moom kon defe naa ni na borom xel te wallaahi dama ko doon laaj rek waaw dama ko doon laaj rek yow kan mooy sa maas mbéng ban bi may mujjee jokkoog turandoo ay rangooñam moo doon tuur li may wax nag du jëm du ma gis foofu nga ca Canada di déglu Zeynab Fall muy defi waxtaan mu woo ma jooy ni ma man kii nan laa nekkee Sénégal ba tey jii kii génn àdduna te mosuma koo xam ba dimbali jooy ci jooy yu méttee méttee méttee métti waxoon na ma ne ma man li des sama dund gi mooy liggéeyal lislaam rek kon wax dëgg yàlla bu ñu ko tuddee maasam mu ñëw tari fii alquran man wóor na ma ni tafsir Abdourahmane xolam sedd na ñun ñëpp suñu xol dafa sedd ndax salmaanu minna ahlal bayt yonent bi dafa doon salmaan ci waa kër yonent bi dafa lal màjj toog ñenn ci saxaaba yi toog ñu bokk ak moom. Ali bin Abi Talib toog muni Salman ñëwal mu ñëw mun ko dugal ci majji ji oh. ñun ko lu ko waral mu ni Salmanul minna ahlal bayt Salman ci waa kër yonent bi la alaaji Mbeng ci waa kër alaaji Xalifa Gay la woon da ko wax jëfé ko kon wax dëgg yàlla mbégte dëgg lañ am ci loolu te da nga mokkal alxuraan wala da nga wacc maa mokkal da da nga mokkal da nga mokkal mokkal moy kaabi bi yëpp de arrahman nga yem wala romb nga foofu jàng na dama maase lu lépp yow nee na dafa maase lu ni na ndax mel na xale bi ngeen faral bi man gis na loolu tey mo fo foor da nga mokal alquran lepp legi ban preuve moy wone ni lan nga ñuy wara ni mokkal nga alquran fatiha bakara al imran نساي مائدة أنعام أعراف انفا توبة يونس هود يوسف رعد إبراهيم حجر نحل إسرائيل كف مريم طه أنبياء حج مؤمن نور فرقان شعراء نبي قصص عنكبوت روم لقمان سجد أحزاب سبيل فاتح ياسين صافات صاد زمر وافي فصلت شرى خوف بقع جاثية أحقاف محمد صلى الله عليه وسلم فتح حجرات خاف زاريات طول نجم خمر رحمة واقع حديد مجادلة حشي ممتحنة صف جمع منافق طاب طلاق طحن ملك خلل حاق معجج نوح جن مزمن مدثر قيام انسان مرسلات نبي منازعات عبس تكبير انفتاح مطففين انشقاخ بروج تاريخ على غاش فجر برد شمس ليل ضحى شرح تين على قدر بين زلزال عاديات خارع تكاثر عاصف فيل عاصف غمز فيل قريش معهم كوثر كافر نصر مصر إخلاص إخلاق للناس طيب، الله لا إله إلا الله خلينا نخالف اليوم في مويلان دون سوتني تيز الدكتورام بور كونفيرمي لي ندور وخ لول لا ديف ني با باي ما شاء الله والله خول يي دينا تو يرانول لي دينا ген والله لي ني ما ساند صاح مونو مكو مان دوما جوي دي لولو يوم مامي يجنا ني امنا لو 10 لو ماي ديف لو موي لي ني ماي سانت تي خالي parce que tu nee na aux âmes bien nées la valeur de l'homme n'attend point le nombre des années kii xam ngeen ni li wax ni mën na man bu deful won li dina ci am sik sak waye mu ngi may gën won ni liñu wax mën naa ko yomboon na lol ñu ni ko jàngal alquran monsieur le ministre ñu ziar la bu baax ci bu ci ñu suñu ci ñu xarit monsieur le ministre Aliou sah ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan gis nga xoolal xam nga ban ay la bëgg nga jangal ma ko ginnaaw bi mbokk yi jëfee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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون وإن نصرهم ليولون أدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد ربكم في الصدور لأنتم أشد ربكم في الصدور من الله ذات بأمامكم لا يفكم لا يقاتلنكم جميعا إلا في قوم محسنة قومي ولا يجب بوس بين xam nga defe naa mënoon naa ko bàyyi mu def mais man dama soxor duma ma ko bàyyi yàlla xam na loolu duma ko bàyyi duma ma ko bàyyi du ma ko baal parce que ku jël responsabilité bu toll ni xale bi mokkal na alxuraan nga wax ko damay dégg alxaaji sa Gay suñu mag ni soo waxee ba ñëpp dégg la da ngaa war a jëf ba ñëpp gis la d'accord nañ dañoo wax ni kii dafa mokkal ñëpp dégg ko léegi jëfa ci des nit mën na ni moom <laughs> ñoo aay xool ko rek mook tafsir jo bokk seen lépp teg seen biir fee xam naa wax nañ seen waxi téléphone ba doy ni ko ñëwal rek yow daal boo ñëwee laaj ko fii ak fii ak mu doon lu ñu préparé nit mën na wax loolu de xel xel dafa garaw tafsir xam nga dafa doy waar yenn saa yi ci gàmmoom yi nga dég mu histoire am na bu muy netteel ba si yàgg di waaja ni lay sama xel mi moo saay saay waaye dañuy bañ kenn am problème ak xelam xam nga loolu nu ñu koy réglé mooy booloo maa ngoog alaaji Idris mbooloo maa ngoog képp koo xam ne moom moom tàng na di wa jibtalaa ibrahima rabbu bi kalimaati fàtte قال لا قال لا ينال عهد الظالم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وتعز من مقام إبراهيم صلى وعنا إلى إبراهيم إسماعيل أن تجرى بيتي للطوائفين والعنف والركع السجود. آه. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلحا خير وأدلة في ما تسحن وتطهر. فإن الله كان بما تعمل خبيرا ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو فلا تميل كل الميل فتزرع المعلق وإن تصلح وتتقى فإن الله كان غفرا رحيما وهي تفرق عيون الله كل من وكان الله واسعا حكيما. حسبك كلام. قال إبراهيم رب كيف تحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى قال أول ما تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصلنا إليه على لا نجزا ابوي تاكيو سبحان الله نور بولا تاكيو والله قسما بالله مفكي تاك ايوه بسم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بخير سليم وازلفت جنه المتقين وعبد الست جحم للقابل وخيل لهم حينما تعبدوا من دون الله يجن سنة فيبتسموا فكنت فيها هم الغاوون وجند إبليس أجمعين قالوا فيها يختصموا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافع ولا صديق حميد أنا قريب إلى المؤمنين طيب. لا إكراه الدين حتى بين الرشد لا إكراه لا إكراه في قد تبين الرشد من الغي فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وحده تمسك لا الانفصام ولا والله مسلم عليم الله ولي آمنوا يجب من الظلمات إلى النور والذين كفروا من النور إلى الظلمات الذي أن أعطاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أولم تحيوني قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق بها من المغرب فبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بقي بقي والله yi wallaay jërul أريته naan ma arrêté